suñuy site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek ndam lu rëy li nga xamante ne kii di Seydina Ousmane Sonko Sonko am foofu ca dëkk bu sell ba di Touba foofu ca Okas ab la soxnaam si am ñaari tout tànk jamono ji nag ñoom ñoom ay seex lañu mais nag dafa jël décision rek tuddee ko ñii di soxnay mbir mu mel nag bañ ko laajee la mu daal di xam ne rek moo di kii di Ousmane Sonko amul ak lien benn yoon wante nag déglu gi nga xamante ne mu ngi koy déglu ak cofel gi nga xamante ne rek am na ko ci moom moo tax na mu def mbir mu nu mel rek ngir rendre ko hommage moom nag la mu daal di xam ne rek bu fekkoon soxnaam soosu ay ay góor la am rek kii di Ousmane Sonko la koy tuddee mais yàlla dafa dogal nag mu am ay moo tax na mu tuddee ko soxna yi Ousmane Sonko ndax gis nañ ci ñoom ñoo xamante ne ay royukaay lañ ay référence lañu ndax seen jëkkër am na fi problème bu nekk yekk nañ ko lu mel ni xamee ci biir réew mi tuumaal nañ ko def nañ ko lu nekk waaye ñoom nag dawuñu daayuñu fi ñu toog rek toog rek ngir jàppale seen borom kër mu nekk mbir moo xamante xamante ne rek mbir mu ko choqué la moo tax nag mu jël tout tànkam yi rek tuddee leen ñaari soxna yëpp ñu nga xamante ne rek ñoom ñooy soxna si Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal bu baax doom yi daal di màgg ba barkeel wante nag bu leen fàttee abonné ba saalee cloche de notification ngir amaat yeneen i info jërë ngeen jëf ci teewlu bi